dugal tànk dugal tànk bi. dugal sa tànk ñaareel. dugal ko ñaar tamit ñaar dugal ko nii. dugalal ñaareel. waaw tey naa ko da nga koy jël. tey naa ko. ah yéen a ngi borom réew mi liggéey nga fi nag loo xamante ni jar na fi lag ay at yi at yi at fi lag ñu ci mën di jaar lii yow rek yaa ko mën ci réew mi moo tax am nañu sañ-sañ nan la laajaatal borom réew mi deuxième quinquennat parce lii jar na ko wooy ku neex ak ku mu naqari ñun nag jébbal nañ la Sénégal ndax nag yaa ngi saf réew mi wooy borom réew mi yaa ngi noonu ci sa ñu ciy daaj bu ñu nit ndànk-ndànk day constaté li nga xamante ni moom nga woon gars yi liggéey ko ba mu set tey nga def fi doxandu macha allah borom réew mi Macky ma ci mboo yaa ñu gën a fule def nag yow la fi yàlla teg waaye yaa jig Sénégal da nga ñëwee ba tey am ku gis ak ku gisul ku nangu ak nangu xam nañ ni réew mi ngi émergé jërëjëf président jërëjëf excellence may am mbégte ak contentement di la woowee borom réew mi ba léegi commencé naa sa filoo ba nit ñi macha allah nuyool nuyool nuyool waay waay ci kaw yu ko leen borom réew mi borom réew mi waay macha allah ah bon donc euh, ñuy fàttali ko nii nii borom réew mi nag fii la jàngee loolu nag information boo xam ni jot naa ko itam parce que nag am na coono gis daan am moo tax mu delluwaat defaraat fii nga xamante ni mooy fi juma macha allah borom réew mi. day wàcc. macha allah borom réew mi. wàcc leen ñu daw. bienvenue ici à Fatick et Foundiougne, territoire du Sine. Le Sine est content. Le président est content. Fatick est content. Tout le monde est content. Merci son nom, le président Macky Sall. L'homme qui dit zéro patte, zéro patte, opération zéro patte. suñu basi si vidéo faaw ñu ubbi suñu saal mënuñoo bàyyi suñu maté ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu Merci son excellence, monsieur le président Macky Sall. Merci à la de Fatick. Merci aux différents leaders qui sont venus en tant que présents à l'appel du président. Merci à la population, merci aux militants. Vraiment, vraiment, li rafet na li li daw li daw waaw ah sa wéy sa wéy kii la président moom nga signalé mu def nii. waaw sa boobu arrêté. waaw mab nañ ko waaw mab nañ ci oto ba de. waaw ah, xaaral moo ne mu bëgg a wàcc. may ko ubbil ko fii ubbil ko fii mu jàll. mën na ubbi ubbi ko fii. côté bi day dem ko mais. Oh, kii waay kii nag su génnoon dinañ am image bu rafet. dina génn mais fi nga nekk dina génn dina génn bàyyi ko dina génn dina génn. ah sa xanaa waa jëf sa ñaata li mooy maxtaar kii lu mu fa doon baax amoo loolu dina gis saa kay moom baax na lu mu fa doon baax wacce sa loxo tuuti wacce sa loxo tuuti xam naa pour minute deux minutes